wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq sayidina wa xabibina muhammadin wa ala wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi diin ayuha almushahiduuna alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yu baax yi nga xam ne baaxoo ngeen déglu seen waxtaanu diine ci ajjuma ji fu ngeen munti nekk fii ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq waaye di leen baal àq di am mbégte lool dajawaat ak yéen ci seen uh, waxtaan wi nga xam ne àjjuma bu jot bu 11h jotee ba midi ñu nag yéen ñun ñooy nekk muy nekk rek comme ni mu doon amee li ñuy wax al axzu wala ata mooy joxe. ak nangu itam seen participation ngeen ñëw bokk ak ñun waxtaan wi rawatina boroom xam-xam yi waaye ngeen may ñu rek ñu jël suñu loxoy xol nuyu suñu kilifa diine yi kilifa aada yi ak ñi nga xam ne ñooy saytu waxtaan wi yépp ñuy jiital nag ci kilifa diine yi xam ngeen ne wax dëgg yàlla altine ak talaata bi passé muy leen di ak mardi ñu nekkoon nag suñu kilifa di Abdoul Aziz al amin bi nga xam ne mooy porte parole euh, fële ca kër gu mag googu ci tariqa bu mbaax bu sell boobu wutu fa magam ju baax jooju si Ahmada Tijani ñu koy ziyaar di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla may gudd fan gu ànd ak wér waaye suñu papa jooju Abdoul Aziz Sy Dabakh yal nañ ko yàlla tëggalaat ay téeméeri téeméeri at ndax lu mu dund rek si Malick doyul ndax kilifa la goo xam ne jàngalaat na ndaw ñëpp ndax macha allahu Euh, keroog ba mu defee discours am boobu nga xam ne ci lu al arabiya la ko def àdduna yëpp a képp koo xam ne même sax ñi nga xam ne bitim réew la ñu jógee sax ñoom ñoo ñu gën a bég ci koloog bu mag boobu ñu doon def ak ministère de la santé ci vaccination ak l'islam kon papa ñoo ngi lay nuyu di la ziyaar di am mbégte lool ci sa xàmmee di am mbégte lool ci sa cofeel jëmale ko ci njaboot gi ñuy nuyu yi tamit ahlul laayeen di leen ziyaara rawatina suñu sëriñu bopp di Mouhamadul Amin Laay maxtar seen ak Alassane waaye nag di nuyu tamit suñu borom kër googu nga xam ne mooy Iba Fay Laay di ko jaale nag suñu xarit suñu soppee muy euh, soxna Zeynabu Diallo di mag ci sama seex Adja Degen Simeer Diallo Adja Zeynabu ñoo ngi ñaan yàlla na xippee àjjana ya gën a kawe. ñu koy jaal ak lu laayeen ñoom ñëpp ndax macha allahu taala ñoom ahlu laayeen ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaal ki nga xam ne ñu ngi jaal ahlu laayeen ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñëwoon keroog di Cheikh Mbacke Laay ak Serigne Jal Thiaw Laay doomu maam raan yëpp ak ñoom Iba Seeni Laay bàyyiwuñu kenn di jaal nag suñu yaay euh, macha allahu taala Adja Fatou kamara mi nga xam ne yaraat na ñëpp ndax lu mel noonu ku ko ñàkk te ànd ak dal ànd ak sago ànd ak teey xam ne inna lillahi wa inna ilayhi na seen yar ak seen euh, sérénité jàngalaat na jamono yëpp képp ku ñàkkati lu mel noonu di nga xam noo ciy demee kon ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di jaal sama bébé yaa faatu Diallo ak ay magam ak ay rakkam mbokk yi xam ngeen fan yii yëpp ñu ngi nekkoon ajjuma ji passé comme ni ma ko waxee léegi sama doom Cheikh euh, Pape Cheikh jàll ma koy nuyu ak groupe boobu ñoom Madou ak sama doom yi fa nekk yëpp Bassène ak euh, Khadija Ndiaye ak euh, Haj Malick man laay wax maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaar di ñëw nag tey ci cofeel goo xam ne amoon na ci mbokk moomu wàññeeku di soxna Zeynab te mu bëggoon toujours ñuy waxtaan ak moom ci Zeynabu doomu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci gëm-gëmam waaye tamit ci fulaam waaye tamit ci personnalité am ndax Zeynab moo doon taawu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Zeynab moom nga xam ne moo doon taawu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla nekkoon na jigéen joo xam ne da doon def yu yoo xam ne dafa ñuy marqué ci digganteem ak boroom këram. waaye doon ko def itam ci digganteem ak papaam waaye tamit doon ko def ci digganteem ak ay rakkam ba tax na lu tax bés bu nekk ñuy indi li nga xam ne moo passé démb di ko boole ak tey xam naa ne nag euh, téléspectateur yëpp ak jigéen ñi ñi nga xam ne ñu ngi xaar kiis bi xam nga comme damaa yore woon sama ordonnance Fat Diagne mu Cees ñëw euh, daal di koy toj weccet bi ma ci naroon am yëpp moom mu daal di ma koy xañ kiis gi nag moom manque dencandi ndax dama bëgg nit ñi jiital li nga xam ne moom la ñuy jiital ci ñaan moo di attaqwa ragal yàlla jiital itam li nga xam ne mooy sellal al ixlaas parce que ñaar yi bu jiituwul leneen loo ci teg day yokk mu ngi mel ni rek jigéen bi nga xam ne dangaa xëy amee sa janaa ba sanguwoo nga dem xëppoo parfum wala nga nekk sa ànd ba di suuru di suur yére yi du la tax a set ndax almaa u tuxur ndox mooy li nga xam ne mooy laabal il faut que cangaay lu set safarata yi set il faut que njàpp mi set pour boo ci tegee parfum mu mën a neex boo suuroo mu mën a xeeñ waaye bu fekkee ne cangaay li baaxul njàpp mi baaxul loo ci tegit du baax kiis bi itam buñ ko waxee waxuñu rek loo xam ne dañ la koy bindal wala ñu ñaanal la rek nga daal di koy jël utiliser rek daal di mokkal lépp dafa am fu muy jaar dafa am lu koy basé gis nga sax macha allahu suñu maquilleuses yu baax yi ñu mel ni ñoom Fat Bintou Aaj ak ñoom euh, euh, Madoog ñoom Khadija suñu lay maquillé dañ lay basé defal la base ba pare teg ci fond de teint teg poudre teg ci liñ ciy teg loo gis dafa am laytaay laytaay bi nag bi nga xam ne moo ëpp solo mooy nga xam li la boole ak sa borom lan moo nekk sa diggante ak sa boroom ba tax mu bind la ndax moom day wax ju siiw jooju nga xam ne daanaka macha allahu ñëpp mokkal nañ ko. Euh, muy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni baadu aus billahi min ashaytani rajim ah may jégalu sax ci li ma waroon a jëkke mooy oustaz Mor Thiam xam ngeen ne mu ngi ci yeneen liggéey ma koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñëpp namm nañ la ni ñu lay réclamer ci télé bi noonu lañ koy réclamer si rajo bi xam naa mu ngi ciy bàyyi xel bu baax euh, di leen dégg su rawatina bàjjen mati ca Amérique ñoom ñëpp ak waa euh, Mauritanie waa Norvège waa Paris Adja Asfal ñoom ñoom ñëpp a ngi laajte xam naa ne ci lu yàggul bu baax ñu ngi ci programme rek dañoo nekk ci salaat incha allahu taala yooyu yëpp dina ñëw ba ci kaaw mi nga xam ne tey mu ngi booru Fuuta mu koy nuyu di ko ziar di ko wax ne massawu coono ci tàngaay bi xam naa ne tàng na jër waaye nag euh, moom nitu yàlla la tàngaay du ko du ko du ko du ko du ko jaaxal yàlla na ko yàlla fay euh, kaaw Mamadou Harouna Ndiaye maa ngi lay ziar la wax ne namm naa la su ko defee ñu dellu si ci li ma waxoon ne Zeynab mi nga xam ne mooy taawu xam ne ndax bés bu nekk dañu bëgg indi benn exemple kii sii dina ñëw ci deuxième partie émission bi tey dinaa xool ndax euh, weccet bi dugg na bu baax ndax ci téléphone yi ma leen di xaar ci 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 mooy ci biir réew mi. waaye ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew comme niñ ko baaxoo def 00221 33 841 20 91 ñooñ tamit ñu ngi leen di xaar loolu ñu ngi xaar waa bitim réew rawatina ñoom Umu Salaam ak ñoom Ami Diouf ca Norvège sama xarit yooyu nga xam ne macha allahu taala ñoo ma tax a mel ni ci euh, biir beek beeg couscous biir yoo bu ma ci jógee miso bi bu ma ci jógee rek ñoom ñu yónnee ma fromage bu ma benn njaayeen summi su ko defee ñuy wax nag ne il faut que ñu ragal yàlla na ñoo xam ne ci serveur bi bu ñu laajee rek cangaay lañuy laaj mbokk yi dafay nekk gàcc jigéen boo xam ne dem nga ba dem màkkatal mukarrama walla nga jóge fii am ay njaboot ba càddu ngay wëlbatiku di laaj nan lañuy sangoo farata ay la yéwén ñun jigéen ñi nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg ndax lépp lu ñu bëgg a mën ñoo ngi koy mën ci mbiru àdduna dëgg la de bu ñu fasee àdduna nañu ànd ak àdduna ndax àdduna itam yàlla yonent bi waxoon na i'mal li dunyaaka ka annaka ta'isu abadan wa li axiratika ka annaka tamutu gadan nee na deel defar sa àdduna di defar ba mu baax ba ku la gis defe ne yow da ngay ci àdduna doo génn àdduna ba jamais waaye nee na nga defar nag di waajal sa boroom ba ku la fekk ngay jaamu yàlla defe ne suba ngay génn àdduna mbokk yi équilibre boobu képp koo xam ne amoo ko rekk cuune nga wabtaxi fii ma ataka llahu daaral axira wala tansa nasibaka e mina dunya ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne nanga sa àdduna na ko liggéey ndax fii la ñuy liggéeyee bagage yi nga xam ne moom la ñuy yóbbu fekk ko suñu bàmmeel ndax kenn duñ lay yóbbu di la suulaale ak sëy ak yu baax yooyu yóbbuwaale looy fa am yow yaa ko fay fekk kon day baax nit ki bañ a nekk cuune am équilibre équilibre moo tax yàlla wax ñu ci alquran wa kazalika jaalnaakum ummatan wasatan ñu ne ko lu tax mu ne li takunu suhada ala naas mbokk yi nit ki il faut que mu am li ñuy wax al wasatiya al i'tidal nga xam ne foo dugg rek danga koy mën nit du mënantu macha allahu taala loolu tax na ba Zeynab mi nga xam ne sama mbokk moom sama xaritu xol boobu nga xam ne dem na fekki boroomam te may wax ne bu kenn jooy ndax li mu def képp ku ko def di nga dajee dig bi nga xam ne moom la yonent bi waxoon yàlla wax ko ci soratu yaasin ma nga wax naan yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin aka neexoon ñooñu ma bàyyi ginnaaw ñu gis teraanga gii ma yàlla jox ndax man kaana axiru kalimatuhu laa ilaha illallah daxalal janna koo xam ne sa mujjantalu kàddu mooy laa ilaha illallah te nag doo xaar bay sukuraat di ko soog a jàng mais dafa nekk loo xam ne da koy miinal sa làmmiñ miinal ko sa xol foo toll moo tax yonent bi ba mag ma ñëwee ne ko waar ma jox ma ndénkaan mu ne ko bu mu deñ sa làmmiñ toujours di takkoo ak tudd yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nga xam ne Muaz dafa nekkoon xale bu mu bëgg ci xolam nga xam ne gis nga ndeysaan keroog ba mu koy yabal yónni na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ak teraangaam muy dox ak tànkam Muaz yéeg ci kaw fas bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ko wax Muaz bul fàtti mukk di wax naan allahuma ayni ala zikrika wa sukurika wa husni ibadatika mbokk yi loolu zikar la boo xam ne billahi bu ngeen ko ñamoon di ko liggéey foo toll mu nekk sa làmmiñ di nga xam ne yàlla rek a jaral xaritool looy wut ci waay wu ne kooku la mu yor yàlla ko ko jox kon nag defe naa raccourci bi gën a gaaw mooy nga takkoo ak sell takkoo ak set mel ni Zeynab meloo nag papaam Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te pourtant papaam moo ko moo moo moo moo moo moo moo sant ñoom ummu Atiya radiyallahu anha moo ko sang yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw wax lañ koy defar ba pare ñoom ñu dem ànd ak moom teg ko ci këram gu mujj ga ak borom këram euh, Zeynab moomu mbokk yi euh, mooy taawu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy wax ne ñi nga xam ne dañoo taawloo ay doom yu jigéen. macha allah ndax yàlla sax ba muy lim di wax ña ma may yox bu liman yasaaw inaasan la njëkke woon a ah bu ko defee Zeynab moomu ba mu matee yàlla jox nag papaam sédde ko Abu Aas mi nga xam ne mooy ibnu Rabia ibnu Abdul Uzza ibnu Abdul Manaf al nga xam ne moom moom bi mu sëyeeg moom am nañu benn doom bu ñuy wax Umaama Umaama moomu nañ ci bàyyi xel ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam ak ci bëgg xaleem ak ci bëgg sët moo tax maam day bëgg sët kon maam yi yéen ñi ngeen xam ne euh, bëggu leen sët di leen jege donnu leen loolu ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen maam yu góor yi ndax am na benn saxaabi yu musa ñëw gis yonent bi di fóon sët yi wala saxaabi yu doon foon seen sët mu ne man de jur naa fukki doom ak benn musuma ci yëkkati kenn fukki jë doom yu jigéen ak benn di ko foon wala may barkeelu ci moom yonent seen ñu ne saxaaba yi ñu ne ko kon yow képp koo xam ne amul man de bokkul ci ñun yonent bi xool leen ko julli ni mu amee maanaa ak julli ni mu réyee ak julli ni mu baaxee da doon julli jël sëtam boobu di taawam di doomu taawam muy umaama bu bu buy taxaw mu nga fab ko bokk ko dégg ngeen kon ñiy wax naan jigéen day yàq julli nañu jàngaat ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu jigéen boobu da doon bokk ak moom ŋàbb ko bu sujuutee tungoom ko teg ko ci kawam bu siggee si gaawaaleeg moom ba julli gi daj ndax loolu nekk na ci ay xadis yoo xam ne macha allah salla na alayhi ndax nee nañu an abi qatada radiallahu anha mu ne kaana yusalli wa huwa xaamilun umaama bint zeynab bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa iza sajada wadaaha wa iza qaama xamalaha buy sujjuut da koy teg nii ci kanamam bu sujjuutee ba pare mu yëkkati ko waat kon ñi doon wax ne jigéen bu la rombee moo xaja yam sa julli yàqu na kon ñooñu dey fi ñu teg jigéen ak fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama teg ko du benn kon nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo tax doomam jooju di Zeynab te li tax tey sama xel yépp bi may gëstu ñi nga xam ne ci aqida ci tawxiidal seen borom ma fàttaliku sama mbokk mi nga xam ne mooy Zeynab ni mu doon waxee dee leen ma waxtaanal ci Zeynab bint Rasoul ndax Zeynab Zeynab dafa nekk tur boo xam ne ñaar yonent bi am na ñaari soxna yu tudd Zeynab moo tax saan léeg-léeg ñu fëggoon mu ne ay ayu zayaanib kan la ci Zeynab yi comme ni mu ko doon waxee wa ay na wa ayu minal fawatimat comme fatimat yi tamit fatima dafa bëri kër sayduna mouhammad zeynab yi tam dafa bëri woon kër sayduna mouhammad gis ngeen alhamdulilahi rabbil alamina fii ci sénégal itam gis nga dañoo bëri ay fatima bari ay zeynab defe naa ne fatima ak moom kenn ëppale wuñu ko ci àdduna bi xam naa ma si jaar di nuyu zeynabu saw fële ca toulouse ak zeynabu kan fële ca paris di leen ziyaar moom saydatuna zeynab xam ngeen ne bi papaam di gàddaay moom dafa desoon ak boroom këram ca màkkatal mukarrama ba xare badar bi mu amee fekk na moom booba lislaam teqaliwul ñu bokkul diine di sëy foofu am na taxaw seetlu kon ndekete bi lislaam ñëwee début bi nangu woon na jullit bu jigéen di sëy ak ku nekkul jullit mais bi ñu demee ci biir ba ca kanam loolu lislaam dàq na ko ba doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi sëyam la njëkk a tas ci loolu mu woo Zeynab ne ko sa boroom kër gi daganatu la yónnee ne leen indil leen ma ko mu gàddaay moom ba mu ñëwee boroom këram yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo tax tagg na ko te sax du woon jullit moo tax gis nga def lu baax ña baaxoon ca ceddo ga ba tey boo leen gisee ñoo baax tey ci diine ji mooy rek li ñuy wax ne ñi baaxoon démb suñu maam yi nga xam ne ñoo nekkoon ca ceddo ga am na loo xam ne du diine lislaam moo ko indi senegal lu mel ni àqu dëkkandoo lu mel ni xaritoo lu mel ni soppoo loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lislaam daf ko fekk fii ci réew mi bi mu ñëwee mu taayit ko taakiit ko mu dëgëral ko gën koo saxal ndax lu baax li nga xam ne noonu la lislaam santaane ci respecté say waajur noonu la lislaam santaane ci defar ay mbokk defaroo mbokk jokk mbokk noonu la lislaam santaane ci mag mag ñi ñu teral leen yërëm ndaw yi di defante lu baax loolu lislaam daf ko fekk fii ci suñu Afrique noire moo tax bi mu ñëwee dafa yomb pour ñu gëm ko Zeynab moomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li gën a yërëmtalu ci bés bi nga xamee ne jàpp nañu borom këram te loolu booy seet ba léegi dafay am fii ci réew mi mooy keroog ba ñu jàppee borom këram ca xare badar booba xoolal sa borom kër di jàkkaarloog sa waajur bu góor mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñuy xeex nga xam ne groupe bii ànd ak yonent bi mën naa génne àdduna sa boroom kër waaye tamit sa borom kër moom it mën naa génnal àdduna ci ñu bokk ci sa côté papa xam ngeen loolu lu triste la lu metti la waaye ñu toog l'islam ci boppam ñëw daal di ne déedéet lii dañ koy teqali kon Zeynab dafay ñëw gis nga ndey saan ba muy gàddaay di ñëw papaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yónnee pour ñu ko jëli mu ne leen na ngeen dem jëlali sama doom jooju ca kër ga nga xam ne fa la nekk ngeen indil ma ko fii nee nañ xubaar ibnu aswad moom nga xam ne moo tiitaloon fas yi boobu mu ngi nekk jigéen ju ndaw macha allah boobu mu ngi ëmb nañu tiitali gëléem ba bi gëléem bi rëppataloo mu daanu ci la jële benn feebar boo xam ne moo ko jox avortement bi nga xam ne infection boobu nee nañ moo ko bàyyiwul ba yóbbu ko yoomal qiyaamati kon gis ngeen mbokk yi lépp lu metti rek ñu koy jooy tey fii ci suñu réew wala ñu koy jooy ñun jullit ñi dafay fekk ne yàlla borom bi subhanahu wa taala natt na ko ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama su ko defee ñu gis ne borom këram boobu bi nga xamee ne jàpp nañ ko mu bokk ci prisonnier yi ah ñu ne léegi xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dañu taxawaloon benn loi boo xam ne dañuy jot ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ci guerre bi muy xare badar bi nga xamee ne yonent bi keroog sallallahu alayhi wa sallama duma na yéeféer yi duma yu doy yu méttee méttee métti rey ci ñoom lu bëree bëri daanaka seen kilifa yëpp rawatina ku mel ni Hind ba Utba ñooñu ñëpp booba jëkkëram ji Abu Sufyaan ñooñu ñëpp duggaguñu woon ci diinal islaam ku mel ni Xaalid ibn Walid kilifa yu mag yooyu nga xam ne kuy lekk tudd ko dara du la ci dal xoola ñu baax ñooñu ñëpp fekk na booba ñoom génn guñu woon ci yéeféer moo tax njëlbeen du dara mujj gu rekk am solo moo tax ca àjjuma jële weesu woon ñu waxoon leen ci tuub jullit bi bu mu ne mukk li ma def ci bàkkaar mënatumaa def lu baax ba yàlla baal ma ah ndaxte lislaam mooy euh, effacer lu bon li nga xam ne jiitaloon nga ko ndax bu du woon loolu kon Seydina Omar du baax baaxle woon dara kon gis ngeen ne ci xare bi bi mu paasee ñuy laaj alal ku amul alal nga xam ne dangaa néew doole ñu ne la da ngay jàngal fukk ci doomu jullit yi gis nga itam jàng ni mu amee solo ndax diina lislaam li ci jiitu mooy iqra la nga xam ne moom la ñu saxe woon saa sa saay woon yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waa Régis maa ngi leen di ñaan bu amee téléphone yi bu ñu ñëwee ñu jox leen ñu ko ñuy wax parce que euh, macha allah auditeurs yi ak téléspectateurs yi ndax ma nee auditeur ñu ne ci télé nga nekk waaye rajo bi dafa boole lépp ndax nii ngay dégloo di seetaan am na ñoo xam ne da leen di fekk si bureau mun nga ko déglu ci sa portable am na ñoo xam ne da leen di fekk ñu nekk seeni oto ñooñu ñëpp su rawatina tax taximaan yeeg ñu nekk si njaga njaay ak ñii voyager ñoo ñëpp mun nañu jot di ko déglu di ko seetaan kon ñi nga xam ne ñu ngi déglu ak ñi ñu seetaan ñëpp mun nañu dugg ci waxtaan bi rawatina asatise yu baax yooyu joxe seen kii parce que toujours bu ma génnee dañ ma koy réclamer mais di ma wax ne dañu doon bëgg dugg ñii di laaj wax ne dugal naa junni ñii di wax dugal nañu ñaari junni soxna Binte Diallo sa junni vendredi boobu xam naa xaalis bi ñuy joxe fii dinaa wax ñoom Adja Digeen ñuy joxe njoganal yeeg dépense ñu di la delloo si junni téléphone boobu ak suñu yaay Adja Kumba Waly Diagne rawatina nag sama yaay Adja Fat Cissé mi nga xam ne mooy madame Touré nekk ci Gibraltar di présidente Daïra Khadija interpellé na ma ne ma toujours damay bëgg a dugg ak mami doomam ba nekk États-Unis yaay booy kon maa ngi noonu di la jox sa nuyoo euh, macha allahu taala yonent bi sallallahu bi mu waxee loolu saxaabi yi ñëpp di yónnee di jot ndeysaan Zeynab xolam jeex mu war a yónnee borom këram. loo xam ne moom la koy jotee mais mbokk yi lan la yónnee moom Zeynab bint Abi bint Seydina bint Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy doomu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam lan la yónnee Zeynab radiyallahu anha nga xam ne moo mag ci doomu yonent bi xam ngeen lan la yónnee caqam caq caq bii nga xam ne comme façon yii ñuy takk la jël yónnee ko ndax xam na ne valeur bi suñ ko Euh, méngalee ak li ñu war a jox pour jot boroom këram dina ko mat waaye ban caq mbokk mi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. booy wàññil télé bi wàññil télé bi nga déglu ci téléphone bi. Mhm. waaw dama la bëggoon wax ne kontaan naa rek man Zeynab laa tudd. Zeynab nga tudd comme xam nga amuñu amuñu turandoo donc il faut ñuy am ku ñuy waxal ci sunu tur bi ñu mën a kontaan daal. dëgg la kay dëgg la. maa ngi siy dégg bu baax a baax vraiment maa ngi toog di la déglu nag ak ay oreilles yu bare bare. dëgg la kontaan nañu. waaw vraiment man Zeynab laa tudd bañ may tuddee Zeynab boobu. waaw xaw ma ci woon dara si Zeynab bi daal mais tey moom vraiment éclairé nga ma daal. waaw Zeynab daal mooy sama taawu yaay donc xam nga daf ma def lu ne bare bari tey. ah gis nga ko nag léegi nag na nga déglu bu baax. li Zeynab bu dundee woon ak boroom këram ak waxuma sax ni mu dundee woon. mais personnalité bi muy indi. ci kanamu ñi nga xam ne ñoo nekk ak yonent bi di saxaaba yi waaye tamit ni mu ni mu def bi boroom këram nekkee ci xat-xat ci foofu la ñu toll nii xam naa tey Zeyna bu yëpp dinañ kontaan. ndax ndax dafa am suñu benn. suñu ñëpp mu ngoog parce que dama bëgg ñun ñëpp ñu yëg suñu bopp ci kër Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama allo Zeynab. waaw maa ngi déglu kay. waaw léegi yow Zeynab yow foofu yow nooy dund am nga borom kër. am ay xat-xat la. dëgg la. yàlla ko yàlla indi si jàmm ak salaam. yàlla dajale leen ci daje bu neex mais daje bu yàgg itam. ba ngeen am ku nekk téeméeri at yéen ñaar. amiin waa kay kontaan nañu si yow torop jërëjëf Zeynabou. yàlla na la yàlla fay. gis nga macha allah Zeynab bu yaa ngi réagir léegi nag seen turandoo Zeynab doomu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne te Jaynaba yëpp itam Zeynab lañu ñun fii senegal dañuy wax Jaynaba nabu yi naba ñoom ñëpp ay Zeynab lañu maa ngi jaar di nuyu sama doom na Jaynaba ba ñoom ñëpp ay Zeynab lañu Zeynab boobu nga xam ne nee naa bi boroom këram ñu war ko jote mu jël nag lan la jël nee naa caq ba ban caq la joxe. caq bi mu joxee mooy caq bi nga xam ne keroog bañ ko joxee boroom këram fekk mu ngi nekk ak sëram Ruqiyatu nekk ak sëram Umu Kulsum nekk ak sëram sama turandoo Fatimatu bintu Muhammad muy seen caat te moom Zeynabu moomu moo nekkoon yaayu Fatima xam nga taaw toujours mooy nekk yaayu ay rakkam moom dafa wuutu woon yaayam Khadija ci njabootam gu jigéen googu moo tax ndeysaan ci xis sa Fatimatu bintu yi dangay gis keroog ba muy dem kër borom këram di sëyi te goroom nag yaayam la woon ndax xaalata mi nga xam ne moo bokk xaalata bintu xuwaylit moo jur Abu As mi nga xam ne moom mooy moo jur Abu As mi nga xam ne mooy borom këru xadi euh, Zeynab kon Xadija ak xaalata ñoo bokk ndey ak baay ñu jël seen kii jël doomam bu góor kii jël doomam bu jigéen ñoom ñaar ñu sëy loolu defe naa ne ñun Haalpulaar yi loolu ñun miin nañ ko jaaxaluñu xëy na benn ci olof yi sax dina am ñu koy def waaye Haalpulaar yi ak saraxule yi soninke yi ñoo ko gën di def xaalata moomu kon yaayam la waaye gorom la gis ngeen macha allah. kon nag léegi Khadija ki mu euh, doomam ñaari doomam yooyu ñu boole keroog ba ñu leen mayee Khadija daf leen teral kon gis ngeen ne lislaam terawul teralaate teralaate mooy jël taraanga jox ko sa ñi ñuy wax njaag nangul njaag nangul lislaam yàgg na koo taxawal waaleykum salaam ko kan la mbokk bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Kavita Fatou Bintou. waaw man ngay waxanteel yow la kan. man Fatou Bintou laa tudd maa ngi dëkk Louga. ah soxna Fatimatu Bintu Rasoul naka ahlu Louga. ñu ngi naka nga dundee xissa bi ñuy waxtaan muy Zeynab di taawu seyduna Mohamed te ñun ñuy caat. xanaa kontaan rek. Mm. ñi rafetlu émission bi. waaw. sopp na la lool man. man maa leen gën a sopp yaay booy. ñun bëgg naa leen torop ma waaw tey ñoo ngi waxtaan ci euh, jigéen ju baax ndax dañu nekkoon ci pas-pas ak ngëm ak taxawaayam comme dafa am nag sama benn xaritu xol bu génn àdduna bu ñuy wax Zeynab Diallo ah. te comme dafa ma doon waxtaan loo toujours ci Zeynab démb semaine bi yëpp nag sama xel nekk ci Zeynabu bi nga xam ne mooy taawu Seydouna Mohamed ak ay jaar-jaaram ah. ak ni mu nuroo woon moom moo tax ma indiwaat Zeynab moomu nga xam ne mooy taawu Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak taxawaayam ah, naka ngeen def ak sunna bi foofu mbaar yéen a ngi ciy góorgóorlu. waaw ñu ngi ciy góorgóorlu baax alhamdulilah. am nga borom kër. yaa ngi yaa jàng looy jàng. arab ngay jàng. waaw ban marxala nga toll. yaa ngi sanawi. waaw kon yow dama lay delloo rek nga dem ci téere yi nga xam ne. Euh, benn mu laxas siiratu sayduna wa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallama boobu laa lay delloo ci siira wala nga dem ci euh, siira yor ibnu Hisham. nga xool. sa turandoo faatimatu Bintu wala nga xool ci banaatu rasul yi di ngeen gistu foofu ngeen gëstu doom yu jigéen yi yonent bi amoon nan la ñu doon dunde seen diine nan lañ doon dunde seen société waaye nan la ñu jàmbaare woon ci diine bi loolu dama bëgg toujours yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jàng arab ngeen góorgóorlu si côté boobu di gëstu ndax ndax dañoo bëgg fauteuil bi bés bu ñu fi jógee yéen ngeen ñëw toog fii amee liggéey bii ñu li amee incha allahu taala Fatima incha allah Fatima dinaa la poser benn question. ma xool foo toll ci daara ji. sa turandoo. am na nu ko papaam doon woowe nan la ko doon woowe sama. sa turandoo Fatimatu Bintu Rasul. am na nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon woowe ci tur bu neex nan la ko doon woowee. oh là là Fatima coupé na euh, loolu question la sànni naa ko Fatima yi yonent bi am na nu mu doon woowee. suñu turandoo Fatimatu Bint tur bu neex boo xam ne ñun bëri na ci réew mi sax ñu koy wax léegi question la boo xam ne jox naa leen ko après ngeen delloo si ma ko ñooñu ko tontu nag ñooñu laay jox sama kiis bi waaye question yooyu ku ko mënul kiis bi duma ko joxe noonu rek gratuitement su ko defee xam ngeen ne nee naa taraanga kenn bañu ko ndax euh, yonent Xadija moomu bi doomam ji di sëyi daf ko yaboon yaboon na ko ci ay taranga taraanga yooyu bokkoon na ci mu jël caq bu am maanaa boo xam ne ba bëtam xonqee moom Zeynabu yëkkati na ko jote ko boroom këram ndax bi nga xamee ne soxla nañu yónnee moom Zeynab dafa yónnee caq waaye cey Seyduna Muhammad sallallahu alayhi fàttewul daray Xadija cey waa ji moo gone ba mu nee jàkk ci caq bi rek xam na ne caq bii soxnaam su màgg soosu di suñu yaa Xadija moo ko moomoon te fekke woon na keroog bi muy jël taraanga yi di ko jox doomam jooju mu daal xool caq bi muy xalaada bu am solo waaw mbokk mi bisimilah. asalaamaaleykum salaam wa rahmatullahi mbokk mi kan la tur bi ak fooy wootee. min ko musidɗo ma ne wiye ramatullahi saa a hayyo ma sohna ramatullahi ma paadi bin ka hay yoma mi yewnima ɗeɗo yam wallahi min ɓuuri yewnude ko kadi haala ma kalta ka kadi e télé ɗi yimɓe fof ne beltoni e allah ne wallahi min ɓuuri weltade ene ñaagui allah kadi ne ñaganima amin ya rabbal alamina seydi sar ko eh, mbaɗata kone min ko diallo guettini a ah, ko diallo zeynabou diallo Ramatoulaye Diallo eyyi Ramatoulaye Diallo jafoɗa <laughs> ko Mame Sar en e Aissata en tan <laughs> eh, miɗo jogui cousine aɓe nan toon Paris Mame Sar joom suudu Gounas ko on nawi kam eh, ko gonga juuri min ñaadimo duwam wallayi yo allah jaɓan min minen fof onon ne woti jaɓite kadi ɗo gonɗa ɗo kadi vraiment aɗa tintini yimɓe ɓe kadi aɗa rokka yimɓe ɓe haqqillaji no gonirta no no dewrata allah kadi no jokkirta endam ɗum ɗo kadi koye weltare mawde kadi e weltanadema kadi e weltanade allah merci beaucoup a jarama seydi diallo eh, kadi min jiiɗi kadi ko gonga ni wona ko ene ma won nande wonɓe kadi ɓe nanani min jiiɗi kadi hay soko ñalawma hay soko saaha goto kadi mbemmoɗa hen hay soko konngol pulaar eyyi eyyi yimɓe mbawa enen fof kadi enen joggo enen fof ko enen joggi sénégal o ko ɗemgal ngal kadi konen fof joggi ɗum kono wooda kadi ko mbiriɗa hen kadi hay koko seeɗa pular inchallahu ɗum ɗon fof ne parene pular ɓene kadi ne enen jokkodira e man eyyi ɗum ɗon ko gonga tigui eyyi won noon ɗemɓe ɗe fof ko enen ndenndi ɗum mhm. eyyi so ɗemɓe ɗe fof kadi kaldama an kam aɗa wawi seeɗa ɗemgal ngal france kalda kadi ma won nandu ɗum eyyi wonno ko kalta ɗo kalta ko haala diine kalta kadi ko haala julɓe o haala kadi jokkira en ɗam ɗum noon ko yimɓe fof no poti nande ɗum yimɓe fof kadi no poti wertanadema e ɗum wallay ko gonga tigui haali gonga ɗum eh, ɗon ma aroy kadi ko tele jokkira en ɗam ko tele kadi dewal allah ko tele jokkira en ɗam ko tele kadi baɗɗe fayida mhm. nde yimɓe ɓe kasidini mhm. eɓe jiiɗi heɗade toujours e ɗemde mhm. moɗon ɓe kaala toon toujours kalten koye wolof ɓe kalten koye français wonon ko haala allah haalte kala ko haala allah haala hay sa nanani e ɗemgal ngal ma nan kam allah o nana nana nelaɗo sallllahu wa wallayi ko gonga tigui ɗum ɗon fof ma eh, ɗum noon ko weltanade ma tan kadi e waylude haaldude ma kadi e mhm. yewnudema kadi e, e, e, e softinde gille gonɗi hakkude meɗen ɗi wallayi ko gonga tigui saɗa yiiɗa neɗɗo tan yiɗa ko allah saɗa mhm. anirmone kadi anirma e gueɗe makko mhm. eyyi noon yimɓeɓe ene allah ko haala allah ka julɗo kadi ka dewo allah jokko rendam neɗɗo ne wawi wonde julɗo taw wawa haalde ko kalta kadi neɗɗo ne wawi janngude taw jogaaki hakkille no kaldata ni walla jogaaki ɗemngal no kaldata ni mhm. ɗum noon ko weltanade allah kadi e weltanade mo yo yallah jokku ɗum jokkiri ɗum yeeso yo allah kadi wat bakke eko mbatta ko amin amin bakke e kadi ha kadi daña dampiɗowo rampide ma amin aɗa yiya aɗa daara yimɓe ɓe kadi ne keɗimi e mhm. kadi ko haalte ko a jarama jarama seydi diallo min beltanima ɗum tan e eh, inchallah ko gonga eh, tigui ko kalta ko kadi ene kala jiiɗomo e ko l'islam tigi a jarama hay o yii jomde ma kadi yii uh, no jooɗoɗa ni kam ene anndi jooɗoɗa ko jomde l'islam mhm. so nani sono ramata jarama jarama seydi diallo ɗum fof ma aroy so allah jaaɓi

allah kala ko neɗɗo yiiɗi nande ko wayno soninke ko na séréer ko wayno pular ɗum fof ma aroy par ce que teleji ɗi ma heew ha mo haymo hay mbiɗa sikkini ko wona ko nanaka ɗo e leydi ndi sah ɗum ɗon fof ma aroy inchallahu taala kono mbokk yi sohna si xam naa ne mu ngi mel ni maa ngi doon dégg démb rek ci seetu bi ñu doon wax euh, benn saraxule bu dugg mu ne nañ ñu defal émission soninke inchallahu taala yooyu yëpp dina ñëw euh, pulaar bi dina ñëw séeréer sax dina ñëw séeréer yi nga xam ne sax xam nga ñoom daanaka mënoon nañ cee bañ bokk waaye ñoom ñëpp sax dinañ leen préparé ñoom nday mbéy nga xam naa ma fi génnee rek moom bu ma jàppee moom euh, dina dina ma dóor dóor yu metti mais ñoom ñëpp dinañu euh, dinañu am émission bu soobee yàlla maa ngi doon nekkoon ci caq bi rek caq saydatuna Xadija ba nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmee caq boobu bi ko yonent bi xàmmee ndeysaan dafa ne bëreet jóg daa gis nga respect bi mu am ñi mu nekkal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa leen laaj mu ne leen ah ndax Zeynab mën ngeen koo delloo caq bi ngeen delloo ko bàyyil ko prisonnier bi daf leen laaj poser leen question te mooy yonent bi de mais du woon jël rek dogal rek dara mel ni ku joxul cër ñi nga xam ne yaa leen féete suuf moom yonent bi daf leen joxoon cër mu ne leen bu gisee bu ngeen gisee ne du wàññi dara maa ngi leen di ñaan bu ngeen mënee delloo Zeynabu caqam ndax Zeynabu de caq bii mu joxe ndeysaan yaayam seydatu Sayyidatuna Xadija moo ko ko joxoon ba muy sëy te ñoom ñi nga xam ne fekke nañu loolu yëpp mbokk mi bisimilah allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. a waay ñoo ngi jégalu. maa ngi jàkkaarloo nag di rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf. yàlla waaw incha allahu taala waaw bu soobee yàlla boo kiiyee waa régie dinañ la ko jox ñoom euh, laasana ngi foofu. waa bu soobee yàlla amul benn problème ñoo ngi jéggulu de ñoo ngi jéggulu yaay booy bu baax <laughs> ñoo ngi jéggulu si téléphone yi ci serveur bi day fees yenn saa yi nit day woote fekk lu mat fukki nit a ngi toog di kii daanaka danuy wuyu di wuyu démb daanaka dañuy wuyu ba ay trois heures du matin 4 heures du matin yàlla sedd na ko waaye nag liggéeyal diine bi jaral nañu ko ñuy jéggalu ñi nga xam ne ñu ngi woote te duñu mën a jot même ñi bëgg a dugg nii sax ñu ngi jéggalu xam naa soxna Asfal ak Adja Binta ma fu ñu nekk ñoom ami salaan ñoom ñëpp fële ca Norvège ñu ngi bëgg a dugg mais waxoon nañ dinañ dugg tey mais incha allahu taala ñu ngi leen di xaar di leen wax rek ngeen wootee ci cent 00 221 33 841 20 91 bi incha allah ñi nekk extérieur ñi nekk ci biir réew mi moom ñu ngi ci. 88 628 04 05 ñoo ngi jéggulu nag ñi bëgg dugg te duggaguñu rawatina sama yaay Adja Amindooy ca Mbuur ak Boomeel Ba ak Ayda Ba ñoom ñëpp ak Cheikh jaan Ba ma leen di ziar caq bi yonent bi bi mu ko xàmmee dafa ñaan saxaaba yi mu ne leen ndax mun ngeen ma ko dellool caqam aw waaye caq bii de mooy caq ba nga xam ne sama soxna su baax sa di Sayyidatuna Xadija joxoon na ko doomam ji keroog ba muy sëy kon ndekete ñun waajur yi taraanga yi ñuy jox suñu doom yi bu ñuy sëy lislaam terewu ko lislaam bañul ku teral say goro lislaam bañul ku teral say njëkke lislaam bañul ku def taraanga ci say xarit ak say am di jàmm wante lislaam li muy bañ mooy gaspillage lislaam li muy bañ mooy làng guddi ba bësën nga xatal sonal nit ñi tanqal dëkkandoo yi bisimilah mbokk salaamaaleykum waaw salaamaaleykum waaleykum salaam. allo. waa allo maa ngi lay dégg yaa booy waa kooku tur bi ak fooy woote man Dior Diatta ci Paris. Adja Dior Diatta maa ngi laa ziar naka mbokki Paris. maa ngi leen di nammu lool Dior. ñu billaay naka mbokk yi foo mbaa ñëpp a ngi si jàmmu mbokk yaa ngi fi rek ñu ngi fi rek seetaan tous les jours buñ demul liggéey ñu so seetaan la kontaan naa jaata man lenn rek laay ñaan pour suñu doom yi tamit ñuy déglu seen émission ngeen koy traduire tuuti en français waaw incha allahu taala voilà loolu yëpp dina am dina am ndax bëgg nañ xam ñu ngi jéem jàng man maa ngi leen di yóbbu kër euh, soxna Euh, waa Adja Lissa sama sama ju baax jooju. sama xarit la. <laughs> Adja wax. këram wax wax nga ku baax. ku baax mën a toppatoo ay mbokkam aki i waajuram Adja Lissa kor Alaaji Daawuda ndeysaan kontaan naa. dimbali sama doom yi ñuy jàng alxuraan man nag dégguma je comprends pas bien euh, wolof wolof voilà <laughs> waaye li nga li nga wax leer na de. tous les jours bëgg naa aussi ngeen di traduire kii en français. voilà. waaw. ñun um, man waa Kolda la je suis coldoise euh, dégguma olof noonu yàgg naa fii ça fait trente ans. mais mais vous parlez euh, pulaar traduire pour xale yi ñuy dégg. mais vous parlez pulaar. moi je parle pël aussi. pël pël ah ah dinaa woo mu lay mu lay traduire affaire bi. voilà Bassel sama doom la Bassel sama doom la. Bassel Bass waaw. yaayam sama càmmiñ lay sëyal Edouard Mbaye. ah macha allah macha allah. waa kay Edouard moomu sama papa lañ ko tuddee. ah kon dina kontaan ne xam naa mu ngi suivre émission bi mu bokk ne sa tante allah mu ngi lay dégg. waa kay. jërëjëf waay maa ngi euh, mm-hmm. allah soxna Dior waaw on est fiers ngeen di def neex na. Mm-hmm. voilà bëgg naa ngeen encore amplifier seen euh, affaire u l'islam pour ñun tamit ñu jot ci. wallaay ndeysaan am na solo. voilà ñun ñu ngi fii wala c'est pas facile mais bon ñu ngi nii rek di seetaan di xool lu ñu war a def lu ñu warul def ñu arrêté wala mm-hmm. alhamdulilah rabbil alamin ñu leen di ñu leen di sax ku ñaan voilà c'est tout. waaw macha allah macha allah kontaan nañu. waaw boo ñëwatee ma contacté la. waaw allah incha allah incha allah ñoo ngi waaj bu soobee yàlla léegi rek balaa yàgg dinañu ñëw foofu. jërëjëf jërëjëf jaata kontaan nañu jaaraama. <laughs> macha allah gis ngeen euh, mbokk moomu di soxna Dior Diatta di tante ci Basel suñu doom euh, nekk itam ci dëkkandoo Adja Lissa Guèye bu fële ca Champigny Adja Lissa maa ngi lay nuyu di la ziar yow baax nga daara ji nag na biir na gën a foor rek incha allah ñëpp rek nañ jàng parce que bu ñëpp jàngee rek réer dañ fi xam nga maa ngi ci caq bi toujours rek caq boobu yonent bi sallallahu alayhi wa xàmmee ne nañ ko delloo boroom. te boroom dafa jëloon caq boobu ko yaayam joxoon caq bu jógee ci saydatuna xadijatu radiallahu anha jote ko boroom këram loolu mel na ni tey ñun jigéenu Sénégal itam ma leen ci saluer bu baax te li may wax sama yaay yu bëri xam nañu loolu ku mel ni Adja Kumba Wali Diagne dina ma ci seede ku mel ni ne Adja Kumba euh, Leena Diagne Fall may ñaanal sama sœur boobu Adja Ndey Xadi ak sama tata Adja Ayda Njong fa ñu nekk ñu leen di ziar ndax ñoom it ñu ngi ànd ak ñun ci émission yi ñu leen di nuyu di leen wax yàlla na fa yàlla teggi tiis loolu yëpp mission rek ngeen di dox bu mission bi matee rek di ngeen génn incha allahu taala léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na caq bi ñaan ñu delloo ko borom këru doomam jooju ñu daal di daal di yónni nag doomam jooju nga xam ne mooy mag ci moom muy eh, Zeydu ibnu Haarisa xam ngeen Zeydu macha allah doom la woon ci yonent bi dafa doomoo woon nag dafa bàyyoo woon yonent bi yonent bi doomoo ko loolu sax dinañ ci ñëw ci problème li ñuy wax euh, tabanni muy adoption yi nga xam ne maa ngi seetaan sama sœur Gaye Siri ma koy nuyu di ko ziar ci beneen télé bi mu nekk mu ciy waxtaan fan yi Zeydou ibnu Haris mi defoon na loolu ak yonent bi moom nag mooy càmmeñu Zeynab càmmeñam ci côté ni ko yonent bi ni mu choisir woon yonent bi ba yonent bi ne ko bës ni ki tey def naa la sama doom mais l'islam ñëw na am lu mu tegg ci digganteem ak Zeynab bintu Jaxs ndax Zeynab bii ci Zeynab yi may waxtaan soxnaam moo takkoon Zeynab bi nga xam ne cousine la woon ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama waaye yàlla bi mu bëggee dindi aada boobu yonent bi la ci nattu mu ne ko sa doom ji soxnaam bii di Zeynab da koy fase Zeynabu moomu sëyam yàlla takk ko ci kaw juróomi ñaari asamaan ci kaw kon Zeynab yi yàgg nañu am manoore Zeynab binti Jahsh moo tax da doon wax wujj yi su kii ne Aboubacry nay sama baay kii na Omar sama baay kii na man euh, Abu Salama nangam naan ku nekk tagg Sawda wax mu ne leen yéen ñëpp seen baay yee leen maye ñooy seeni goro yonent bi man nag yàlla moo takk sama sëy ca juróom-ñaari asamaan ndax yonent bi daanaka sax mitit taxoon na buggul woon a jël ku doomam bi nga xam ne da ko doomoo woon teqali ko mu takk ko waaye damay wax ne lu metti ci kaw àdduna rek nañ ko muñ ndax yàlla da ko natt ci Seyduna Muhammad gis nga ba tey émission bi ñu ngi wax ne waxtaan bi nga xam ne maa ngi koy def mun nañ koo déglu ci rajo FM 99 point 4 waa TFM daal dañ neexul ba neexul waaye GFM du moroomu ñeen kon képp koo xam ne yaa ngi war a génn te émission bi jeexul wala euh, beneen yoon nga nga bëgg ko déglu mun nga ko jàpp ci 99 point 4 foofu dinga déglu waxtaan bi directement ak yeneen nag yuy ñëw bu kenn daw bu kenn tiit bu kenn jaaxle lu waaye bëgg lu nekk di nga ko am fii daara yi yëpp lañ ci fas yéenee ubbi te boobu dina doy waar ndax seetu la boo xam ne dañoo bëgg mu nekk seetu àdduna nga xam ne foo ci nit sa bopp rek gis ko gis ngeen mbokk yi bi nga xamee ne yonent bi lépp de Zeynabu li muy yónnee caq bi ba tey mu ngi nekk ak borom këram lislaam teqeelee gu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag bi nga xamee ne euh, wax na ak euh, saxaabi boobu sax nekkagul saxaabi muy euh, Abu As ibnu Rabia mi nga xam ne mooy borom këram di doomu xaalata bokk yaayam bokk Xadija ndey ak baay taxu ko woon a teel a dugg ci diine lislaam ndax dafa bokkoon ci kilifa yi comme Abu Sufyaan bi nga xamee ne nee na yon yonent bi nee na ko dinañ delloo soxna si caqam bi nga xam ne yaayam moo ko ko joxoon mais boo demee nag ma delloo si sama doom ndax lislaam dafa teqali seen dëggante kon lan lañ ciy jàngat ñun waa Sénégal ak ñi nekk ci bitim réew ak mboolem ñu ñuy seetaan waa Italie rawatina ñoom Kiné Thiam Kiné Sey maa ngi lay nuyu ak waa Italie rawatina Awa Ba sama doom euh, Kor Ibrahima maa ngi lay nuyu di la ziar namm naa la trop ak umuñ salamata ñoom ak daayira bi waa bàyyiwu ma leen ndax dinañ ne nuyoo bi sax bari na waaye mënul ñàkk ndax ñoom ñëpp wóor na ma ne ku nekk yaa ngi toog ci sa téléphone bëgg a dugg te mënoo dugg moo tax day neex léeg-léeg ñu leen ciy dugal ñuy yëg seen bopp ci li nga xam ne yéen a ko moomal seen bopp muy waxtaan wi ndax loolu rek loolu rek a tax mu jóg pour nit ñi jëriñu ngeen jàpp xissa yi moo tax benn jigéenu jullit moo xam mu ngi ci biir réew mi wala mu ngi ci bitim réew lislaam mayu la nga sëy ak ku dul jullit góoru jullit nag yàlla yombalal na ko moom mun na sëy ak jigéenu ahlu kitaab moo xam ku gëm beneen diine mais jigéen ji moom lislaam def cee fiir du mësa nangu ba ko yonent bi xañee Zeynab mii di doomam di Zeynab taawam bu jigéen mu tas sëyam xam ngeen ne metti na te ki muy tas sëy bi neena seen ñaari yaay bokk ndey ak baay kon gis ngeen ne segam kooku la tas sëyam kon ñun ñii du mat wax kon di képp ko am sa doom jigéen muy sëy ak keneen su mariage yi ñuy wax mariage mixte lañ koy wax xaw nañu xam ne bu dee bu jullit ba te nañ ciy gëstu parce que néew na am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy tuub tuubu rek sëy bu sëy bi ba jeexee bés ba ñuy ngénte sax boo leen laajee seen turu jullit duñ ko xam waaye tamit jigéen ñi itam góorgóorlu parce que itam nga tuubloo doomu jàmbur dugal ko sa diine léeg-léeg mu jote ak ay waajuram ba pare fekk yow doo pratiquer sa diine man bëri na sama ay doomu nit ñu weex ñu may wax ne ma mais tata ñun suñu jabar daf ñoo tuubloo ba pare te moom du julli wala suñu jabar daf ñoo tuubloo ba pare te moom du muuru li ko lislaamam sant du ko def suñu jabar daf ñoo tuubloo ba pare te fonkul li nga xam ne moom la ko diine bi nga xam ne moom la ñu dugal fonk maa ngi nii su ma ko waxee defal lii day bañ wala su ma ko waxee loolu ñaata yoon laa koy dégg ci suñu doomu nit ñu weex ñi ak suñu doom yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen diine yi Hazari yow sama doom bu jigéen bi yow mi nga xam ne yaa jël nit ba tuubloo ko dugal ko ci sa diine war ngaa am fulla kooku bañ laa yab bañ laa xeeb gis nga Zeynab radiyallahu taala anhu bi nga xamee ne papaam delloo si na ko mu ñëw ñu toog benn bés ca balaa balaa ah, xam ngeen ne boroom këram duggaat na ci diine ji mais bi mu duggee si gënam li ñu naan xalam demoon na bay neex buum nga dagg macha allahu taala bi nga xamee ne teg nañ ci lu mat juróom-benni at Saydu ibnu xaalis ak kenn ci waa Ansaar dem jëli ko wax naa leen noonu yàlla boobu xubaar ibnu Aswad tiital ko mu jële ca daanu bu metti waaye ndeysaan Abu Sufyaan ca jom ga daa di leen kar ba cëg la ko génnee ne leen doomu yonent bi kii yonent bi boroom këram jox na ma ndigal pour ma génne ko bi nga xamee ne moom moom moom nga xam ne moom la Abu As euh, sant pour mu jër yonent bi sallallahu alayhi wa sallama xubaar daal di koy tiital daf ko ne Abu Sufyaan dafa ñëw ne ko tee ñoo dimbali dimbali leen ñu ah dimbali leen ñu waay ba ñu mën kii génn guddi bañ a génn bëccëg mbokk yi defe naa waa nañ ma temps bi jeex na ndax bi ñuy jël dafa xaw a am tuuti retard ci xam nga rek problème mu machine yi ñu leen di wax ne teg leen seen baaraam ci caq bi waaye teg leen seen baaraam fi bu jógee makk jëm Medinatul Munawwara di fekki waajuram teg leen seen baaraam itam fa muy jël jab borom këram mu nekk refusé mu taxaw ci diggu jumaa ji wax kàddoom yu rek mag yooyu ne papa xamal ne sama borom kër maa koy gardeel sama bopp kon ñoo ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam ñu ngi ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bëggoon a dugg te dugguñu maa ngi ñaanal sama doom faatu bintu Aaj yàlla na ko yàlla fay di ñaanal sama doom Abdou Aziz nekk fii ci région bi borom këru ndey Soxna Camara ci HLM Grand Yoff Ablaye Makhtar Diop fàttewuma ko di ñaanal sama mbokku Adja Zeynabu Diallo yàlla na xippee ci àjjana yu gën a kawe di ñaanal sama borom kër Alaaji Kaaw fa mu nekk ci Fuuta yàlla na ko yàlla sàmm aar ko di ñaanal soxna Binta Diallo ak njabootam yépp di wax wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu تأخذه سنة ولا نوم له